Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. salaamaaleykum mbokku téléspectateur et internaute bu Equivox TV tey nag dañuy seet si ki nga xamante ni mooy Alioune Seye numéro bi doon jàkkaarlook ñaq jariñu Alioune Seye ñu ngi lay nuyu. waaw soxna si maa ngi lay fay maa di la jox sa wàccuwaay sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ sëriñ Babacar Mbacke mu kaburoo borom Daaru Salaam ak gaan mu yàgg fi loolu te wér di ziar ñëpp rek di bëggee ñëpp waaw ñu ngay fay bu baax a baax a baax. Alioune Seye nan nga dundee li xew nga préparé sa combat waajal ko sonn ci ñu yàqal la ko lum la def. waaw sant yàlla rek sant yàlla comme ñu ngi toog di ko nettali nii dañuy sant yàlla rek ndax metti na nag metti na trop waaw ndax xam nga préparé combat ay weer xam nga def si sa coono def si sa alal. ànd ceeg mbokk ànd ceeg ñi nga war a ànd ñëpp ba jour boo xam ne mu demee nii mu demee neexul kenn mais nag jaam day bëgg mais yàlla moom mooy dogal dañ koy sante yàlla te xam ne loolu yàlla cërale moom la ñu sedd dañ koy nangu ak ak bu sedd guy dëgg yàlla metti na trop préparer sa combat ñëw ba jour mu demee noonu moom xam nga metti na mais dañuy jégalu promoteur bi di jégalu ak làmb di jégalu képp koo xam ne daggoon nga sa billet pour ñëw ci làmb ja pour seetaan combat bu neex xam nga ñu ngi jégalu ñëpp rek waa ñu ngi jégalu ñëpp di wax ne xam làmb noonu la làmb noonu la waaw ñuy sant yàlla bu baax a baax. Euh, mën nga ñu nettali nan la histoire bi demee commencement bi ba fin. waaw histoire bi nu mu demee moom mooy xam nga lu ne faa kenn ko jeex li naan wax waxaat du bari wax leeral ay wax la rek mais ni mu demee moom ñëpp gis nañ ko mais mooy li may wax làmb lu ci bokkul bokk ci maa ngi ñëw di def samay dernière bouteille di wër xam nga moom mu dajeek man bi muy daal man comme yàgg naa ci laa man ñaaw naa njott ne. mën na ma sotti dara xaw moo ne dina ma ko sotti ko mais maa ngi maa ngi maa ngi ci bàyyi xel pour muy romb ma xajal ko nii def face ak moom mu dox deux pas gestu këpp ma affaire bi xam nga mu këpp ma affaire bi ma daw di ko téye mu dóor ma xam nga mu dóor ñu jàppande foofu noonu ci la ma jàm benn bay jën bu mu noonu la demoon xam nga nattu yàlla la te ndogal fu ne lay jógee dañ koy sante yàlla rek ndax mënoon naa gën a metti man xam nga ku ne xam ne loolu newul woon sama yéene mais nag sant yàlla rek sant yàlla. ñu gis njëkk nañu la sànni gàllaaj réagiroo ñu sànniwaat la nga soog a réagir lu tax première fois bi ñu la sànnee nga ne tekk noonu lu tax continuer woo loolu. waaw mooy li may wax rek tout à l'heure ma ne nit defukaay rek su feesee rek day tuuru am na nit loo xamante ni xam nga moment yoo xamante ni xam nga am na moment yoo xam ne du nga mën a maîtriser mais am na xam ne moment yoo xam ne doo mën a maîtriser wu te nit ku dul juum tamit amul dëgg la. am na boo xamante ni ñëw nañ sotti ma ma maîtriser wu ay ree la ma def loolu noonu même li ma mujjee sotti sax ay loolu ay may def ndax xam naa loolu tàmbaliwul laam jeexulul laam mais nit day toll moment boo xamante ni xam nga noonu rek la mën a defee quoi noonu rek mën a demee waaw di jégalu ñëpp rek waaw. am na ñu ni da gis que dañ la jekku da nga sentir ni sa defet day ñëw moo tax nga ne naa xeex yàq làmb bi. non non loolu moom bokk na ci waaye di xëy na mooy li may wax rek. coow moom bu amee wala wax jóg moom ku nekk ak ni nga koy gisee ndax yàlla moom moo bind te utale ñi xam nga ku nekk di gisee nu ko neexee ñooñ nag seen normal ñu gisee ne dañ maa jekku mais làmb ja képp ku xam làmb laa képp ku xam làmb di dund làmb ba ñu summeeku ñun ñaar ma la gaa di def samay dernier réglage képp ku ko newoon foofu làmb yi nga xam ne làmb sama làmb la waaw mais ñuy wax loolu nag xëy na ñoom ñoom loolu loolu moo leen concerné loolu loolu moom ñoom la concerné loolu lañ gëm mais man gëmoo loolu damaa gëm ba ba arbitre di souffle fin man maay man maay am ndam ne waaw. Balla Gaye woon na fi ak Modou Lo ñu gis waa kër Modou Lo def ko comme niñ la def benn yoon ñaari yoon taxaw mu réagir mu daal di serein sérénité boobu noonu lu tax yow àndoog moom. waa déggu li ma la wax xëy na moment Balla Gaye Balla moom ngay wax ne man bokkuñu. ndax làmb dafa bëri dafa bëri dafa bëri dafa bëri ay ay ay ay ay sew sew am na loo xamante ni lu ci bokkul ak bokku ci moom bu fekkee ne am lu xam ne da koy xëpp luy jëriñ la wala luy yàq moom na ko xëpp mbërëm mais amul benn droit xam nga xëpp mu ko amul benn droit xëpp mu ko waaw ndax li mu def noonu xam nga bokku ci làmb bokku ci làmb donte gars yi ñu ngi koy def mais loolu bokku ci làmb ndax loolu képp ku képp képp ku def rek lu ne lu ne mun na ci am ndax mun nga tombe kuy muñ mun nga tombe koo xam ne du muñ ndax yàlla dafa bind wutale waaw te bu dee muñ nag moom làmb yi gisuma ku ci ku ma ci dàq muñ mais xam nga seytaane bëri na doole xam nga te nit tamit am nay moment yoo xamante ni te làmb yi ma daf ma soxaloon yitteel ma moo tax mu demee noonu mu demee léegi ñu ñëw ci sanction bi gis nañ ni CNG tranché tranché na ni koy waxee CNG tranché na sanction bi wàcc na ñu daan la 6 mois ferme yow loolu bi nga ko yëgee lan nga santi nan la la def. waaw bu ma ko yëgee waaw am naa lu ma metti ndax wax dëgg yàlla préparer sa combat ay weer def ci sa coono def ci sa alal yëpp ñëw xam nga mu demee ñu tooñ la ñu tooñ la pare bëgg la aj 6 mois te xam nga amoo lenn lu làmb soo bëreewul xam nga affaire day métti ci yow ñu bëgg la toogloo six mois après xam nga day metti mais nag mooy li may wax sant yàlla rek fekk yàlla mu ngi may wér ñu mën a xam di dem di ñëw di mën a li lijjanti suñu soxla sant yàlla ndax ku toog ay année balance deux ans six mois taxu ñuy wax mais nag dañ ci sant yàlla daal dañ ci sant yàlla waaw sant yàlla baax baax ñu ne euh, tooñoo mais amoo woon pour fayu tey su amaatoon ndax dinga nga noonu waaw euh, tooñu ma euh, tooñ nañ ma nu mu ne. ma ne tooñoo. waaye nee nañ tooñoo waaye nag amoo woon droit fajal sa bopp ndax am na ñoo xamante ni ñoom ñoom lañ fa teg pour ñuy superviser lii am tey fekkoon loolu amaatoon na nan ngay réagir. loolu dëgg la si su amaatoon suba suba suba suba mu wóor ma ne lii bokkul ci làmb ji ma defaat li ma defaatoon ndax am na loo xamante ni luñ naan mbéju kanam borom moo koy fajal boppam. ndax lu bokk ci laam bokk ñu xawma fu xawma xawma xawma lu mu yor xawma fu mu ko jëlee ak lu muy jëriñ xam nga bu lu muy sotti na ko sotti kiyam na ko na ko sotti mbërëm xam nga am na loo xamante nag maslaa goo gis si masalay mujjee non c'est-à-dire ma sotti lii ñu bind te xamoo saafara boobu lan la loolu du ma ko nangu kenn du ma du ma préparé sama combat def ci sama xaalis bu bari def ci sama coono benn golo goo xam ne kenn xamul lu mu fu mu jëlee butéelam ñëw di la ko sotti ma koy nangu du ma ko defal kenn Euh, axlu làmb yëpp yàkkamti woon nañ la yow it gis nañ ni que yàkkamti woon nga bëre sa combat bi nii ak état physique bi nga am est-ce que pare nga pour dugal recours baalu CNG. waaw c'est normal ndax xam nga ñoom suñuy kilifa lañ CNG suñu kilifa lañ seen normal ñu ñu xam te ñoom bu fekkoon ne sax ñun dañoo am habitude di yàq làmb wala ñuy ñëw ci làmb di indi ay coow yooyu noonu mais boo xool làmb yi ñu si gën a yaru boo génnee boo génnee un xam nga doo doo doo loolu nag sant yàlla la loolu moom sant yàlla dañ ciy sant yàlla baax baax a baax a baax mooy li may wax rek boo gisee mobilisation bi ma def nga xam ne làmb namoon nañ ma li fa woon ci làmb yëpp laa lay wax ni man lañ faraloon man lañ yéen moom am ndam kon loolu sant yàlla la rek waa di wax ne yàlla na jàmm yàgg daal waaw mën nañ bind mën nañ bañ a bind ñun daal ñoo ngi ni ay ndongo lañ nu mu aajoo rek ñu def ko waa nu mu aajoo rek ñu def ko lan ngay wax ki nga xamante ni mooy sa adversaire ñàkk ñu ginnaaw bi ñu ko ajee moom moomin at moom ak waa écurie waaw moom tamit di ko masaw rek di ko masaw ndax wax dëgg yàlla moom li may wax rek moom si seen famille la te moom tamit ci bëre la yaakaar di bëre di am di yóbbul njabootam su toogee tamit ñu aj ko at tamit moom tamit day métti ci côté ñu koy masaw moom tamit xam ne xam nga ni la waroon demee mu demee nii rek waaw ni la waroon demee mu demee nii ñu koy masaw bu baax a baax baax. gis nañ euh, ñoom ñu def sotti ne yow yaa saaga ndey. non non loolu xam nga bu ñuy wax loolu noonu xam nañ ne ñoom ñoo tooñ ba pare Sénégal yëpp xam nañ ne tooñ xam nga sénégalais am na si ñoo xamante ni saan ay faux type lañ dañuy bëgg a ngoyaalu ci dara ne non sa moo ko saaga pour sa waay def nii mais ku ma xam ñii seetaan xam nañ àdduna xam nañ monde làmb xam nañ ne man du ma yàq làmb te du ma wax wax wax bu ñaaw waaw signature sax bañ na ko ba xam nga gars yi ñu imposé naa ma del def lii del def lii del def lii mais loo xamul xamoo ko kon xam nga ku dul ku xamul lu mënul def lu bon barki Seydina Mohamed mais nag sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waa set c'est normal géejuwaay dañoo bokk nday bokk baay ba pare xam nga mooy li may wax rek booy def lu baax du baax day wëri mbokkam ñun dañoo nekk ci géejawaay te xam nga yéene ñëpp jàmm ku am ñu demal la xam nga muy mbër mu ndaw ak mbër mu mag kon c'est normal suñu ah, suñu suñu xewlee tamit ñoo ñu fay ñu boot bi rek loolu la waa loolu waral mobilisation bi ba pare xam nga ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waa ba pare te xam nga sama supporter xam nga Alioune Seye bëgg daal waaw moo tax gis a toog deux années balance bërewoo woo mu mettee am na mbëri yu ko xam ne boo ñu ko defoon tey bu ñuy dem du yóbbu ñaari kaar mais à chaque fois man su ma gëjee ci làmb su ma ñëwee waaw mooy loolu. waaw di leen wax ne nañu tala xel maa ngi sant yàlla bu baax dem naa faju ji xam nga maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi wax jàkkaarloo caméra yi di wax di mën a doxi samay soxla metti na nag waaw nit moom dara xajul ci moom. mais nag jaam moom mooy li may wax rek day nangu dogal ndax na toog dogal moom pour jaam yi yàlla yi la te jaam day nangu dogal nangu naa ko bu baax a baax a baax di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax non jëriñu décision ne dootuñu bëre ndax boo xoolee benn essence am maa ngi fipp ne damay bëre mais li ma doon génnee ci deret moo bëri xam nga docteur Alioune Sarr woolu ma ma ñëw mu xool affaire yi xam ne man mënatu mu bëre mu ne ma demal looloo tax ñu kii mais amuñu sababu pour génn dem yoon rek waaw li ne sama kanam moom Sénégal xam nañ ko mooy li may wax rek man maay maye sens boobu ba léegi rek kenn mayoo ma sens. gars yi dañoo war a ñëw ñu bëre ku xooloo ko boo boo xoolee bëri naa vingt combats boo xoolee ay quatre défaites laa ci am wala cinq xam nga kon loolu palmarès la quoi am na su ñoo xamante ñu ngi lay lay fii amuñu amuñu amuñu amuñu nombre de combats yooyu sax mais nag sant yàlla xëy na. mooy li rek lu jot yomb lu jot yomb yàlla baax na. Ehm, léegi lan mooy sa dernier mot. dernier mot mooy dernier mot. <laughs> lan ngay tàggoo week ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan ak ñi nga xamante ni ñu ngi lay xaar. waaw li may tàggoo moom mooy tàggoo di jégguluwaat jéggulu bi nag dañ koy jéggulu xam nga du dañoo jéggulu pour dañoo tooñ. mais dañoo jéggulul mooy nit ñi nga xamante ni dañoo bàyyi seen yitte yëpp ñëwoon ci làmb ji xam nga te am ñu ci lu leen neex ak promoteur bi nga xam ne dafa yëkkati woon alalam def ko ci pour ñu bëreel ko ñooñu la ñuy jéggul ak ak lu làmb gi yëpp wax dëgg yàlla di leen jéggul bu baax a baax a baax di leen wax ne xam nga nit mooy juum mu demee noonu mu demee noonu mais ñuy sant yàlla bu baax di sant képp koo xam ne jàpp nga ci combat Alioune Seye numéro ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla dafa la sutura tawféex ak tey siir bàcc waaw yéen tamit xam nga ñu ngi leen di ziar leen bëggee wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen seen bi dem ba nekk ay seeni seeni seeni seeni seen dem bay nekk ay télé télé télé ci barke Seydina Mohamed ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax alors chers téléspectateurs d'Equivox TV comme ni ngeen ko gisee nag tey Aliou Seye lañu seet si woon yaatal ci waxtaan dañ leen di wax ba beneen yoon incha allah. si vous la pouce bleue pour liker